sunu borom nee na bu ngeen dajee wax ne yàlla mooy seen kilifa ba pare sax ci ak njub te mooy daje bi nee na malaaka yi dañuy wàcc naan leen bu leen ragal bu leen jàq bu leen tiit na ngeen bég ci aljanna ji ma leen dikk da caa teg ne nahnu awliyaukum fi l xayaati dunya wa fi l ñun ñoo leen di ñooy seen kilifa àdduna di seen kilifa ci àllaaxira walla fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma taddaun lu ngeen bëgg ci seen bakkan muy lu neex ci aljanna da ngeen ko fi fekk lu ngeen woote ci aljana ngir bëgg koo am da ko fi fekk daal ne nuzulan min xafoorin rahim nee na nganale gu leen yàlla y ganale la sëriñ tubaa ku am fulla la liggéey bu ko waay liggéeyal dina la ko fay sëriñ sàmbay lii daa bokk ci pay yi ko yàlla yi fay ndax moo waxoon ni ku baas ab baas kili koro doon kenn nit woo ma ci ngir ma xamle ci yàlla dinaa la fekk si te xam la bi mu doon xam la ci yàlla di ko wax ci niti yàlla yi Sëriñ tubaa joxoon na ko ci cër bu rëy rëy rëy boo xam ne àdduna bépp seere nañ ko ci di ko waxtaane Sëriñ Tuubaa nag moo wax ni bu ngeen ma dee waxtaane baax na su ngeen ma dul waxtaane baax na waaye waxtaane ma njariñ la ci dund bi ndax boroom asamaan ak suuf teg na ay malaakaam di ma sant sakarani sul ara diina wa sama sukkuran la dal axyaari xat rusima xanaa xamoo ne Sëriñ Tuubaa fi ne buy wax ñi am ñi am dimension bu bu sew nii waxut ak ñoom de ndax mënuñoo xam li muy wax ndax fi muy waxee ci yàlla la nee na yàlla mii boroom asamaan ak suuf sant na ma cant goo xam ne gaañu baax ñu moom xam nañ ko nee na ñi nga xam ne am nañ ab cër ci yàlla xam nañ cant gi nga xam ne moom la ma sant li ko waral mooy sunu boroom da koo wax ne ko ku ma fi ma sa yebal ci kaw suuf mu dox sama mission am na fu ma tuuse man yàlla ndax dem na ba tudd sama nguur gi wax na ca la te bokk ci yow nag laa gis nga àgg ci yenn marta yi ma àggale la fa sab liggéey àggale la fa te mënoo génnaaw abdullahi wa xadimu rasul abdullahi wa xadimu rasul rek lay bind sëriñ bi nee na li ma njëkk a def mooy jël sama bopp jox yàlla awwalu mabtada bihi alxadiimu taalluqun bi man lahu taqdiimu nee na li ma njëkk a def mooy jël jox sama bopp jox yàlla subhaanahu wa taala ñu ne ko loo ci teg mu ne wa azhara alxidmata aama jaysasi wa qalbuhu admaraha min asasi nee na sama xol ci asas 1301 ci Mbàkke Bawal moo tax Mbàkke ñi koy fooyee xamuñu dara nee ci Mbàkke Bawal 1900 1301 dëppoo 1883 laa nëbbu liggéey bi sama xol nee na liggéey bi moom mi ngi woon sama xol nee na ama jëy sa sin nag laa ko feeñal déglu leen ma bu baax. awwalu mabtada bihi alxadiimu taalluqun bi man lahu taqdiimu wa ashara alxidmata aama jaysasi wa qalbuhu admaraha min asasi nee na Ama Dieye Sassine muy 1313 ci laa feeñal liggéey bi waaye sama xol nag mi ngi ko nëbboon à Sassine 1301 dëppoog 1883 waaye nee na ba ma agsee ci Ama Dieye Sassine xam nga nu ma def ñu ne ko déedéet mu ne lu dul liggéey liggéeyal yonent bi ni ñuy def am xar noonu laa ci def fees ko jël yàq yàpp wa teg nale jël der ba teg na nee na loolu laa dajee ci lu dul liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam munsalixan fii jaysasin min xayri rabbil wara qadima usni xayri nee na lu dul liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amatuma ci soxla nee na ñu jël ay jéng na ko rab sama yeel yi ay jéng benn naar bu ñaan xabal nee na ca Mauritanie lañ toog ndeke sama goro gis na jéngi yi xanaa xamoon ne Serigne Touba ni ko jéngee woon musu ko musuñu ko jéngee kenn ni ko yàlla booleeki noona musuñu ko booleek yenn noon jéng yi ko tubaab yi jéngoon te yàlla def ko ci baatin jéng boobu ku dul Serigne Touba yàlla mënu la caa génne nee na naar bi nekk ci biir xayma bi nitu yàlla la de se Cheikh Ibrahima Diop Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana nee na wa sakkara lii habal karaamatan an zihrihi abi sawjatihi nee na lii karaama la boo xam ni sama goro moo ko def te nee na daa tëdd ci xayma bi xam nga naar yi dañoo baaxoo seen kawar buñ koy xolloo seen doom ju jigéen lañ koy xolloo nee na doom ju jigéen nekk ci xayma bi di ko teeñ baat boobu sax la sëñ Mamadou Lamine Diop waxat di ko teeñ waaye nitu yàlla la de nee na mu gis gis ni yàlla wàccee ay jëng ci sëñ te sëñ Tuubaa daa war a daj jëng yëpp moo tax mu naan xat fàkk kabla fi ne fat xat fàkk kabla jooju ngay dégg mooy jëng bi ko yàlla jëng te bu ko te jëng boobu bu dajutoon ñëpp safaan ba lañ jëm naar bi gis ko yërëm ko daal ne bëri daal di génn ba ci biti ñu dégg mu mel na am lu mu wéq ñu dégg mu ne kàng ba yeel bi damm ñu daal daw génn ne waaw lii lu mu waaye yow lu damm sa yeel bi mu ne ah man day dafa am nitu kilifa nitu yàlla ci Sodaan koo xam ne gis naa ñu jéng ko jéng boo xam ni jéng boobee moom laa doon jéem a damm far sama bi yel damm te mënuma ci jëng bi dara mënuma ci jëng bi dara naar ba fa la jaaree xam ba mujj faatu te jëng boobu ñu jéngoon sëñ Tuubaa mu di ko jéem a daj daj sëriñ Tuubaa ne leen bàyyi leen maag sama jëng danaa danaa dox moom waaye jëng bi laata ñu ko koy jéng Tuubaa la nekk di xëlwatu di xëlwatu di wéetal yàlla di wéetal yàlla di wéetal yàlla ba rasuul lay feeñu ko ak saxaaba yi dafa wax moom Cheikhul Khadim ne képp ku ma def may yàlla bu yow mal xiyaamee danaa la def ni suñ borom def jaamam bu mu gërëm képp ku ma def may ab yonant may yonant bu yowmal xiyaamee ma def la ni saaba di def yonant bu mu gërëm képp koo xam ne daf maa def waliyu bu yowmal xiyaamee danaa la def ni waliyu di def taalibeem bu mu gërëm moo tax sëñ laat ne ki ko jaaxal mooy ki nga xam ne ni ko yàlla def neexu ko kon nag ndokk bi nga xam ne nii yàlla def sëriñ Tuubaa nun neex na nu noonu te it tawfeex ji nu am jaroon na bés bu set ñuy def jataay bu mel nii sëñ Ibrahima def bés bu set waroon nañ di daje di def lu mel nii ndax suñ boroom tawfeex gim nu tawfeexalee sëriñ Touba ndax ñun ñi aju ci moom di ay taalibeem dafa wax ne bu nu aju wutoon ci moom doon ay taalibeem bu ñu doon yendoo woor di fanaanee naafile it bu nu faatoo dem sawara bala ñoo dem àjjana ba noppi su fekkee daañu dem àjjana i'lam bi na anna allasina taallaqu biya lawla taalluquhum biya la daxaloo naara baxda mawtihim walaw muddatan xalil qabla duxulihimul jannatu allati wu'ida almuttaquun nee na ñi aju ci man bu ñu aju wutoon ci man lu ñu góor góorgóorlu donte daa ñu dem àjjana danañ jaar sawara ba noppi ndeke li nu musal ci jaar sawara mooy ànd gi ñu ànd ak Serigne Touba kon jërëjëf Cheikhul Khadim noo ngi ñaan suñu boroom. ci barkeb Cheikhul Khadim ak pàkk bii nu nekk mu yàggal fi lool Cheikh Mouhamadul Mountakha dolli ko ak wér mottali ay mébétam ku ne xam na ne liggéeyu Serigne Touba bi fii mu ko jëlee yoon wi mënu ko woon a ñàkk sama turandoo sëñ Mor Mbaye ba mu nekkee ci juróom atam moom sëñ Mountakha nekk ci biir daaraam di jàng am na guddi goo xam ne da koo séen ni kii ko mu mu ne ko mën a Mountakha sëñ moor ne ko Muntaxa wattul te nu wattu la ndax yaa ngi ko denc ab denca ngi ci yow sëñ Muntaxa bërki démb la koy nettali sëriñ Sohain bu Cissé doomi sëñ Mor ne ko loolu day denc boobu ma sëñ moor doon wax maa ngi koy mi ngi may door a leer ku ne xam na ne sëñ Muntaxa mboolem nit yàlla yi am cër ñëpp junju nañ ko bi muy laata nekk ci jataay bii mu nekk sëñ Mor Mbaye Sy mi may wax nii dafa waxoon ne man bu ma fi jógee sëriñ Touba may jullee mu laaj ne man de gis sëriñ bi dañ koo laajoon ne ko ndax danga danga faral di man yaa ngi gis sëriñ Touba mu ne sëñ Touba bépp taalibe bu dëggal man koo gis ne man sëñ bi saa su ma ko soxlaa fii ma toog dama koy gis ne baadu yéen da leen a jafe nu ne ko lool sax sëñ Mor ne man de ku fekkee sama jullee bu ma fi wàccee ab liggéey da nga gis sëñ Tuubaa ndax man sëñ Tuubaa may jullee bu ma fi jógee kon xaar leen kon ku ko ko yàlla taw feexale da nga julli ci gannaaw sëñ Tuubaa boo fekkee bu ñu may jullee ndax man sëriñ sëriñ Tuubaa may jullee loolu la sëñ Mor may see wax 88 doon shahru ramadan ca juróomi fan yàlla dellu ci boromam ñu yëgal ko sëñ Blaat sëñ Blaat ne lu mu waxoon ñu ne ko daa laajoon ne buñ la ko waxee boo ne lum lu wax nee leen njaareem la tànn nee leen man njaareem laa tànn waaye nag su fekkee ne laajut it ndigal lu mu def na ngeen ko ci fekk sëñ Blaat ne gannaaw njaareem la tànn kon Serigne Moustapha ma nga fa moom Cheikh Abdoul Bachir nañ ci wax ak moom danaa yable biñ ko yëgalee sëñ Moustapha sëñ Moustapha waaj ba dara desul lu du léegi mu ne sëñ Mountakha demal nga taxawee ko nga jullee ko sëñ Mountakha taxaw di jullee sëñ Mor. ñu bari ñu newoon ci sàppe ne moom day ak wilaaya gi ak baatin bi ak cër gi même am ci yàlla dane woon sëñ Tuubaa koy jullee ñëpp doon nañ xaar sëñ bi waaye sëñ Muntaxaa lañ gis mu jullee loolu 88 la ñu bàyyi ba 2018 muy fanweeri at min achachin li machachin taqabbala wa bi siraatihi kafaani subula fi mu ne suñ borom gis nga temps borom guddi gii daf nu ko daan jàngal mooy xaalim ju mag ji sëriñ sàmbay eh, temps amut ci suñ borom espace yi amut ndax lépp daa teewandoo ci bopp ci kanamam sëriñ bi nee na bari na lu ma bëggoon asas te mësas laa ci jot te loolu asas ak mësas boo ko xoolee 30 ans la 2018 mu nekk di sëriñ Touba kon teeloon na koo junj Cheikh Mamadou Fadil sëñ Fallou daraan wax ne ah ñi ngi wax sama ay gi neex gee xéewal yi nañ bàyyi ba mu Mouhamadul Bachir aye rek xaar leen ba Mouhamadul Bachir aye ginnaaw gi soixante soixante si sëriñ Bachir jóge jógee fi ñu ne ah sëñ Fallu tuddoon ayu Cheikh Ahmadul Bachir ndekk boobu sëñ Muntaxa lay junj ku ne xam ne ne bis bii mu defal xaside yi ak bis bii mu defal sikkar si kuñ dut sant kuñ la géeyloo waxuñu la déeyuñu la doo ko xam doo ko man kon noo ngi ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko mottuli ay mébétam fedd liit suñu kóllëre ak bokk yi nga xam ni tey fi la ñu nekk tey muy képp ku sant mbay ku sant mbàkke ak ku sant jéey yëpp ñu ngi leen jottali suñu kàddu di ñaan nit yàlla na leen fekk ci jàmm ah, di amit mbégte lool nag si bés bii nga xam ni itam nag yàlla dafa def itam suñu xarit suñu rakk suñu kollëre di sa Ibrahima Mbaye mii nga xam ni itam dañoo bokk lépp bokk lépp gi weesuwul suñu ñaari maam yi bokk ndey ak baay ku jigéen ki meññ waajuram ku góor ki meññ suñu waajur muy sëriñ Sam Mbàkke Caajaay kon yàlla bu defee loolu itam mu am bésam bii def di ko def ay ati at yàlla defit ba ren ji mu jàpp bés bi xelam jàppul kenn ku dul suñu jëmm ji ngir jël ko dara jaale ko bés bi nga xam ne moom nañ def sant sëriñ Sam comme ni ñu ko waxee rek Serigne Sam moom toujours ku déglu ay waxam mu ngi lay jàngal toujours mu ngi lay jàngal ay waxi démbam dafa mel ni tey jii la nekk tey si àdduna di ko wax. kon yaakaar naa ni tey jii bu jógee ngir bas wutal ko bés di sant Serigne Sam Mbaye kon loolu mun a ma ne ko li nga def def nga lu rafet kon bu amee ñu yëkkati ñu yëkkati bés boobee ñun dara jaale ñu ko kon Ibrahima mën ñun desal desalatuñu dara ndax day rakk joo xam ne nag. ah wax dëgg it naa ma ne ko ñu sequl bari ba bis bii nga xam ne itam si la ñuy def caajaay ndigal jóge si suñu wayjur muy sëriñ Sam Mbacké moom miit sëriñ bi di wayjuram mu amoon yéene ngir ñëw di ko di ko jàngal bés boobee yàlla defil sëriñ bi làqu moom it mu ni yéene jooju dana ñëw it eggale ko suñu jëmm ji ba bis bi nga xam ne laa ko woo wax ko ko amoon na programme waaye yàlla dafa dafit mu naa mën ko mu jël programme bi bu joxe ko ni nag la ni comme dangay ngay defali ay jàmbur te sa te sa mbokk xewle kon yaakaar naan dem defali sa mbokk googe moo ëpp farata mu bàyyi programme bi dikk teel ñu suñu programme bi ñëw ga mi ñëwit xoolu si lenn loo xam ne lu mu fa war a yëkkati bu jox dafa ndax boppam lay si kon loolee Ibrahima xam nañ ko baax a baax a baax noo ñu rek téye nañ la ko nu ko nu ko raw ndax loolee tey ji bis bii wane na ko war na firnde bu wér a wér wér te bokk gi ga dangaa gën a defar bokk gi ndax tey ji bis bi ah, tuddee nga ma ko waaye si biir tur boobu tey yaay yaa ngi si biir ndax maam ji benn maam gi lañu ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ñu dikkee itam tey dama mënoon naa nekk caajaay yónnee tey la may yónnee ni la yow ko Cheikh Ibrahima yaa moom bis bi yaa ma ko tudd waaye nag maa bëgg yow tam nga wàññeeku teyal ma si bis boobee kon loolee it mën naa ma da nga ko def ndax lépp benn la rek tey jii lii am mun naa mën ne ko mag ña nekk sa barsàq tey wax dëgg mun naa mën ne ko tey bu dil siwaatoon tey fii seen xool dana sedd lool ndax li ko waral mooy da ngaa dundalaat ak bokk te dundal ak bokk googee mun naa mën ne ko gis nañ ko baax a baax a baax ndax li nga xam ne rek euh, la li alxuraan di wax rek innamal mu'minuna ixwatun mu ni julli yëpp ay bokk lañ waaye lam sa tes nag mun naa fa aslihu bayna axawaykum la wax kon yaakaar naa rafetal googee yo mi Cheikh Ibrahima tey mun naa am loolee def nga ko tey ji ndax mën nañoo nekk caajaay cosaanoo Mbàkke gi tey ñu nekk caajaay ngir liggéeyal fan suñu wajur moo Modou Balla indi ko fa ngir teg ko fa mille 1954 ba ni mu jóg ba ni mu bàyyi ko ñibbi saa Touba gi mu sa mu sa génn caajaay kon loolu boo amee tey te fii la cosaanoo ñu wàññeeku tey ji mun naa mën nga jëlaat cër boobee delloosiwaat ko doon la ko delloosiwaat nga sëriñ bi si biir si biir bokkam ndax cër bii xañ na ñun suñ fàll nga ko tudd waaye nag lépp lu askanoo si Ahmad Soxna wala lépp lu askanoo si si Soxna Fat Saer ak soxna Bassine Mbacke lépp ñu ngi si biir ñu ngi si biir boobee muy góor muy jigéen kon biis bii képp ñëpp am nañ ci mbégte kon Cheikh ñu ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal bés bii li nga si bëgg yaa ko xam yàlla na ko sëñ Tuubaa defal yàlla na nga daje ak ngërëmu sëriñ Tuubaa yàlla nga daje ak ngërëmu sëriñ Sàmbay mi nga xam ne moo tax nga di ko fay suñu xol nag sedd na lool tey jii xat-xat yee bari waaye tey jii mënoon tey lu mbooloo mu bari tey moo lañ la ko indi ci sa bés bi ndax jaral nga ñu ko ndax xam nañ fi ñu teg xam na ñu ngi ñu xam nañ ñu ngi ñu soppe kon xam nañ ko wér a wér wér kon ñu ngi ñaan daal si bis bii yàlla nañ ko teew ay déwén déwén képp ku fi teew la yàlla na yàlla guddal fan yi te yokk wér gi te xam ne nag am nañu yéene tey jii si bis bi maanaam def si lu ne waaye nag fi nga xam ne fi la fi fi mu ñu topp fekk la rek waaye nag euh, sant nañ bu baax di sant it ñi fi jot a jaar ñëpp doon waxtaan si sëriñ bi ngi leen sant bu baax rawatina suñu turandoo yi di sëriñ Mouhamad Fadel Diatara moom it wax dégg nañu kàddu yi kontaan nañ ci lépp maanaam ngir yeete la rek ngir xam ndax dégg nañ tey xista yoo xam ne yaakaar nañ jàng ñun amaat nañ ci meneen bind moo xam ne loolu tey ji mën nañ ko dinañ ko yóbbaale te it maanaam dinañ dinañ jàpp loolee su suñu mbokk mi fi jaar itam li mu wax yi dégg nañu ko ndax dañ jataay day boo nekk te doo fa yokkoo jataay boobu yarul dem jaru jaru dem comme li sëñ Tuubaa di wax rek si béy wacc tañi bu ma jaa ma jaale soxaaw boobu mu wax yaakaar naa ne barab bii tey barab ba bokku si ndax tey yokkoo nañ fi si di diine yokkoon nañ fi tey si xam-xam yokkoon nañ fi tey itam si ay xéewal kon bis bi Cheikh Ibrahima ah kàddu yi bëggoon nañ mu gënd a noonu waaye nag eh, dañu koy tënk foofu rek. bis bu barkeel di bisub lislaam di bis boo xam ne bii sans borom bi ko ki koy taxawal yàgg na ko taxawal lool te di ci nemmeeku toujours mag ñu baax ñi nga fa leen neewoon koon seen tànk yi sunu te daal xeñtu lu baax. ñu tànn ca kenn nag tudde ko ko muy sëriñ Jibril Lay bala ñuy egg ci lool nag ñu egg ci ñi nga xam ne moom lañ sëriñ waajur yi Maxtaar Lay ak i bokkam ak ñi mu àndal ba mën a taaral bis bi ba bis mel ni mu mel nee na xolam sedd na lool sedd na guy guy guy ndax bis bii ba mu ko waxee ak njabootam mu ñu nekk ca ndakaaru di ay doomam ak sëti ji maam Jibril ya fa ne ñëpp ñoo ànd takku laxasu fas yéene teew ci bis bi teewal ci sëriñ Jibril mi nga xam ne moom lañ tuddi bis bii te ñoom ñëpp yàlla dogal na ñëw nañu ay jarbaatam a ngi fi ay doom a ngi fi ay sëtam a ngi ñëpp a ngi fi ñi ciy cité Cheikh Mbaye a ngi fi ak Ousmane Ndiaye ak euh, maam Faati ak euh, ndey lay ak ab sama nga mooy seen mag ca nekk Ndakaaru ñëwut waaye jëfam ñëw na kon nag ñu leen sant bu baax seen taxawaay te xam na mbokk moom lii rek la mënal mbokkam seen maam Jibril lay yaakaar naa luñ ko defal rek yooyu na ko kon nag dafa mel ni Serigne Ibrahima Mbaye jox na ko ndabal taraanga loo xam ne lii ndab loolee ku ne xañ na ci ndax bis boo xam ne bii alxuraan a ko laal ak xasaayit ñu yenn fee jàng alxuraan bangoon yenn fee jàng xasaayit ak salaatu ana bii ak listixfaar boole fi ay bokkam berndeel leen dajal leen ñuy saafuwante ñaanlante am na ci ñoo xam ne def naa bis bii daaw lañu ko joon a gis seen moom ñëpp sama borom dogal lañu gisante fi saafuwante ñaanalante yendoo fee ñaan ñaanal mag ñi ñaanal ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo waral bis bi ñaanal ay wajuram muy njabootam kan ci jiit ci njabootam muy sëriñ Touba mbay ka ca topp mooy Serigne Omar Dieye ka topp mooy Serigne Mbacke Ramata ak seeni dëkkandoo ak seeni àndaale nga xam ne seen tànk sunna lañ ko tegoon tegoon ko ci siraatal mustaqima liggéey ak jaamu yàlla ak jàng ak jàngale li na xame woon kon nag sëriñ Ibra yaakaar naa ne fi nga teg sa tànk mel na ni juumuloo te wax dëgg yàlla li nga def naw nañ la sopp nañ ndax ndaw nga mën ngaa jëmale sa bëgg ba fenn waaye fi nga ko jëmale ci alxuraan ak xasaayid kon li nga xam ne moo di rafetal ak ñaan te sama borom a adooni astajib ñaan leen na may leen inna rahmatallahi xaribun minal muhsinin kooku mi ngi ci bis bi dafa naa rafetal nga ko ah say bokki jege nañ la fo isaa daxaa nii fa liestajibu leen kon dafa mel loolu wusu na ci ñaan gi kon mel na ni ñaan ngi nangu na sama ba muy ko ñu ñaan ci borom bi subhaanahu wa taala képp ku fi teew yal na yàlla saafara si jàngoro yàlla yàlla sàmm la te taxaw la. maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay ñi fi teew ñépp gis naa leen ci su démb ba tey nit ñi noppaluwuñ fu ne nit jóge na fa ñëw fii ci barab bi taraanga bu ne nit indi na ko fi ngir sama jëmm. Serigne Saliou Diop moom it noonu la def ndakaaru la jóge mi ngi nii toog sama xarit la moom ñëpp xam sama diggante ak moom mi ngi nii toog ci suba la ñëw moom taal otoom ñëw ngir sama jëmm moom noonu rek la mel naka noonu jàng ci xasida yaa ngi nii toog bari ba kaar ñoom ñëpp ñëw fi ngir sama jëmm ñu ci tuddee sëñ Xaadim Mbay dana yóbbaale ñëpp maa ngi sant bu baax sama mag sama taawu baay di sëñ Fallou mbay bis bi kenn ëpp ko ci yéene taxawaayu rafet la ci am maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko sunu kanam ndax bis bi moom moom moomu ci gën a ñemeeloo moom waxtu nekk dama ci soññ ak dama ci jox ay xalaat yu rafet bis bi ci timis bu jeexoon sant naa yàlla la li ma ci bëggoon lépp am naa ko ci alquranul karim liñ ci jàng mënuma xam lim bi am na sama wenn wóllëre woo xam ne lim ma jàngal ci alquran ñu koy wax sëñ daraame doy na sëkk moom laa jox Ibrahima Mbay mi sama turandoo moo ko jàngal alquran ba mokkal lim ma jàngal ci limu kaamil doy na sëkk naka noonu mënuma leen a lim signal lu jaañ mi taxaw ci taxawaayu daare alquran yi ñëpp ñëw nañ kenn desut maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di delluy ziar sama mag sëriñ Omar Lo moom it taxawaayam ci man rafet na maa ngi koy seedeel ñëpp di ko ñaanal yàlla mu bàyyi ko fi ndax taxaw na ma lool maa ngi ziar soppe yi ñi nga xam ne ñoom bis bi tey su ma ko manee def mu mel nii ñoom la sëñ Fallou ngi ni taxaw ak ñi nekk ci ginnaawam sëñ Alsaan sëñ Abdou ñoom ñëpp ku lim juum sëñ Ali ak ñi nekk ci seen ginnaaw daayira soppe yi tey jii jébbal nañ ma addiya yu bari ngir jëmmi sëñ Touba jàpp ci liggéey bi ngont yi lépp ñoo ko ànd ak man maa ngi leen sant di leen gërëm di leen xam ne li ngeen ma defal lépp yëg naa ko yàlla ma yàlla bàyyeeg yéen ba ngeen li ma yéene ci yéen ak li ngeen yéene ci man lépp ekk ginnaaw loolu maa ngi sant bu baax sëñ Alaaji Mbàkke ñu caajaay sëñ Alaaji Mbàkke boo gisee ma jox ko lii dafa nekk koo xamante nii ay taxawaayam dafa rafet ci man man lépp lu may rekk du ma ko def ci tandaatu dama koy xool ba natt ko ba xam ne jot na ma ma door koo def sama diggante ak moom rafet na ay bokk lañ waaye li mu séq ak man dafa rafet maa ngi koy sant di ko gërëm lim def nii nga xam ne délégation bu takku la àndal ànd ak nit ñu am solo ànd ak ñoom jóge caajaay ñëw fii yor seeni oto yëg naa ko bu baax a baax lu ma ko lebaloon rekk fay na ma ba wis ma maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi te yàlla mottali yéenem di rafetlu bu baax taxawaayam di sant soxnaam soxna maam jaara taxawaayam mun buñ demee caajaay jàngi fa moom moo nuy taxaw moo nuy defal lépp duñ xiif duñ mar maa ngi koy sant di ko gërëm sant ñi màndal ñëpp di sant Baye Matar lay ndax Baye Matar kat bis bi bi ma ko ko waxee ne ko Baye Jibril laa ko tudde Baye mataar dafa mel ni bis bi moom moom sax moom ko gën a bëgg mu doon yitteem guddi ak bëccëg ku ne mu woo la te la at yi am bu ko neexoon loolu du ko ci fekk day woote njabootam rek ne leen yéen lañ tudde seen maam bis bi waaye yëg naa ko taxawaay yim ci am yëg ko bis moom ñu tudde ko am na solo waaye li ci ëpp solo mooy nga yëg ko te moom yëg na bis bi kon mataar Matar jërëjëf sant naa la maa ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér ci barkeb sëñ Touba di ko ñaanal sa njaboot gi jóge ndakaaru ñoom ñëpp ngir seen jëmmi maam waaye ngir sa jëmm waaye ngir sama jëmm maa ngi leen di jox seen wàcc waaye ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla mboolem njaboot gi yàlla def ci barke fu ci nit mën a sëtoor ak ci al ci maam Jibril la ñu ngi lay sant di la jox sa wàcc waaye di la xamal ne li ngeen def yëg nañ ko seen taxawaay rafet na yëg gi ngeen yëg bis bi yëg nañ ko yal na leen yàlla fay. maa ngi sant bu baax waa daayira bi di daayiratul muridina fi xidmati Cheikh al Xadim ñoom bis bi ñoom ñoo ko liggéey ñoo ko taxaw ànd ko soppee ci njiital sëñ Mbay Sey ak waa daayiratu Mafatihul Bichri mu ci tuddee sëñ Modou Faye moom it yóbbaale na ñëpp. ñu ngi leen di sant di leen gërëm léegi lañ mu ñëw jébbal ma fi addi ju takku ñoom waa daayiratu muridina jëm ci bis bi kon ñu ngi koy yëg bu baax di sant soxna maam Anta ja di màggu alaaji Abdoulaye Dia bu sanikoo ñëpp xam nañ ko yónnee na fi sëñ bàllam yi di jàngkatu alquran di ko jàngale moo ko fi teewal mu ngi nii dend ak man sëñ bàllam yi nee naa ko sa teewaay bi teewaale na mboolem jabootu alquran sant ñëpp di gërëm ñëpp su ma limee damay juum di sant bu baax DC Galo Ba moom it ñëw na fi biig indi fi ay indi fi taraanga yu yaatu maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko lii ak bëggam ndax moom taxawaayam ci man rafet na ndax def na yitte ci sama diggante ak moom njabootam yépp ñëw nañ fi waaye di sant bu baax euh, Fall Mbay moom it ñëw na fi ànd ak njabootam kenn desut ànd ak sëñ Modou Mbóoj ak sëñ Modou Ñang ñuy samay bokk maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom it am nañ taxawaay yu rafet ci bis bi Cheikh Basirou Kamit noonu laay wax ci moom sunu mag la suñu lépp la dëkk ak ñun ci koñ bi waaye am taxawaay rafet ci ci ci kër gi am ko ci koñ bi am ko ci ñëpp kon ñu ngi lay sant sëñ Ablaye Jombaxa mii noonu laa koy waxe ci moom moom way juróom sama lépp la sama xarit la ay toog ba si yàgg mu woolu ma muy bàyyi Assane Jombaxa yàlla na ko fi yàlla dollee yàggal day toog ba mu nekk ko mu woolu ma jox ma ay addiya ngir jëmi sëñ Tuubaa kon maa ngi lay sant sa taxawaay rafet na dikk gi nga dikk fii bu ci dara doon hasard kenn ku ci nekk li nga bëgg yaa ko xam bëgg nii ci yow gën ci dëkk bi yàlla na ko yàlla def ci barki sëñ Touba sëñ Saliou Niang maa ngi koy nuyu di ko ziar bu RFM mi ngi nii toog lépp li nga xamante ni communication war na ci diggante bis bi ak nit ñi def na ci lim man guddi ak bëccëg waxtu wu nekk sama mag la bu ko neexoon yi ci bari du ko ci fekk maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko lii ak bëggam ci barki cheikhul xadim yëg naa li ma defal lépp di ziare bu baax sëñ Abdou Lahad Niang sama xarit moom it mi ngi nii toog mooma njëkk a bàyyi la doom ci jànkati xasida yi kon loolu yëg naa ko bu baax Niang kon nag sëñ Abdou Karim Fall nee nañ ma délégation bi egsi na ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko jox wàcc waayam di ko wax ne ko yëg nañ ko yàlla na ko yàlla fay te defal ko di ak bëggam ci barkib sëñ Touba. Mouhamadou Lo mi may tëje muy sama xarit di sama sëriñ di sama lépp am ci man ay taxawaay taxawaay yoo xam ne ñëpp xam nañ ko jërut sax ma di ko wax bis bi bi mu desee semaine la ma woolu ma ñëw mu yëkkati addiye joo xam ne jox ma ko defar na bis bi loolu nag doo mën a ñàkk ma wax ko ñépp dégg ko ak yeneen taxawaay yoo xam ne am na ko ci man lu dul bis bi saa su nekk mu koy jëf ci man loo njaga yàlla na ko yàlla bàyyi ci suñ kanam sëñ Mbàkke Fay maa ngi koy moomit sant di ko gërëm sëñ Mbàkke Fay doon koo xam ne moom taxawaayam rafet na ñëw na fi indi fi ay taraangaam kon daal man Mbàkke sama Mbàkke ñëpp laa am ñëpp ñëw nañ maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp